Rodri mënees na noo jàpp ni saison bi jeex na ci moom di information bu ci wadd léegi waaye balaa loolu Sadio maana coppati na bitam bu am solo. gone gi blessé na démb ci match bi nga xam ne ab équipe am di équipe bii di Manchester City doon na ko football ak équipe bi li nga xam ne moo nekk Arsenal match boobee ma nga doon amee fële ci Angleterre bi ñu footballee lu toll ci ñaar fukki minutes sëngam la match bi la blessé moom mi nga xam ne moo nekk Pedri blessure boobee nag moo ko jural maanaam mu am ligament croisé ba fii may waxeeg ak yow gone gi yaakaar naa ne dana toog lu jàpp juróom-ñaar juróom weer te du laal bal na ci lu yaatu yaatu nag ci jamono yee passé Aladji Malick TV andil leen ko moom mi di euh, Rodri ma jéggalu Rodri di international espagnol Rodri moomee nag la ma waxoon mooy football bi métti na ci ñoom lool ndax bis bu ne fi ñu toll ñu ngi bëgg a ak bëccëg maanaam pour ñuy football lu jëm ci coupe du monde des clubs coupe du monde euh, tamit ak li nga xam ne mooy euh, coupe d'Europe ak ligue des champions ligue des nations loolu lépp yaakaar naa ne di football ay téeméeri match ci benn saison loolee mën naa andi musuba ci footballkat yi waa UEFA ak waa euh, FIFA faale ko ba tey jii nag moo waral musuba bi nga xam ne dal na ko moom mii Vertonghen mi nga xam ne moom it démb ci match bi nga xam ne Barcelone doon na ko football ak coupe équipe ak équipe bile euh, di Villarreal match boobee tamit gis nga na mu mujjee moom Vertonghen blessé blessure boo xam ne euh, bu doy waar la moom it mooy gone yi seeni tànk ñoo fënax fënax nag mooy maanaam entraînement yi dul jeex ak jur na musiba ci li nga xam ne daanaka mooy footballkat yi lii nag yaakaar naa ni football bi am nañ ci part de responsabilité ndax war nañoo mën a jël saison euh, semaine bu ne ak lu métti métti benn match bu baree ba bari match Ligue des Champions yi ñu ciy rax doy na ci waaye bëgg football saison bi match Ligue des Champions semaine bële ñu rax si lii la di match coupe beneen semaine ba ca topp ñu rax si Ligue nation Nations beneen semaine ba ca topp ñu rax si maanaam éliminatoire coupe d'Europe wala coupe du monde nangam ak nangam footballkat yi dootuñu ko attan loolee nekk na loo xam ne lu metti la ci footballkat yi ne ca Europe. baneen bi ci des nag bala ñoo tàggatoo comme ni ma ko waxee léegi Sadio Mané ci match bi nga xam ni mi ngi en koy football pour l' instant pour l' instant gonek sénégalais ma jox leen information yi nii ginnaaw passe décisive bu ab entraîneur ko kott waa Arabie Saoudite nga ko wuti ci moom jàpp ni gone mi ngi doxal dugalaat na ab but boo xam ni bu mucc ayib la léegi la ko def moo moom notre cher international sama waa ji seen waa ji jàmbaari fàkk te di ji baa ngi daw bu ba jeexee danañ ci indi ay xët yoo xam ne yu ama am solo la Sadio Mané ca kaw ca kanam ci lépp loo xam ni ay xéwal la